kontaan naa de kontaan naa ci yow man xam isa xam man yàq na maa xam jee de ku baax taalibe Serigne Saliou loolu nga wax dëgg la maam Cheikh Anta taalibe kooku kooku gis nag taalibe Serigne Saliou nga koy teg te yoo taalibe maam Cheikh Anta la borom dërëm ak ngërëm ku bëgg Serigne Saliou foofu mu ne ko koo yeex a jox maa ngi dégg nag nit ñi ku ne def ay détails de fen lu ne lu koy wax Sénégal xam nga lan la gën a bañ kuy liggéey du jéey moom la président war a jàppale ñu mel ne moom ndox ñoom euh, fu mu fekk dëkk danañ ko suqali mu jëm kanam danañ jàppale ndow ñu ñuy liggéey di dimbale mag ñi waaw ñoo xam teraanga man teraanga te nee dana ma jàppale même bu dee lëf la pul sax bu ma koy jox may jaay man danaa jël wala mu jox euh, weyand wala wala ëpp sax bu ma ko joxee ma joxe ma man ma jaay lu ma jox baax na ma ni santal ma ko gërëm ma ndox ndax mënoon naa ñëw ci man mu jànne ma wala mu ñàkk ma ci sëñ bi maa ngi jégalu de maa ngi jégalu toogaan de alhamdulilah dama laa soxla woon ah déet mu ko ma mën a fen maa ngi lay fekk ci biir maa ngi lay fekk ci biir waaw fu mu toog di wax rek jëm salaamaaleykum. ah Gajaga Gajaga waaw Ndiaye Ndiaye. Ndiaye ngeen def. gëj na ko. ñu ngi doon coono yi. sant. gëj na ko sant loolu bu baax. waaye ñu ngi am borom pàkk lambaay. borom pàkk lawbe. lépp lu ngay sant. taalibe bi yëpp. ñu ngi waroon waxaat. sant yàlla bu baax. maa ngi ñaan jàmm. pour ñu bañ fa yàgg. xam nga. bu ko si laa ko ñii. def moo def moo sonal dafa mel dafa gën a rakkal. dañ nekk woon fële kër. moom la moom la indi fii. ba ba dafa gën a rakkal da koo yokk. xam nga laa bëgg la. nga teg ko lu métti. dama bëgg mu mos a génn xir gi ca àñ. ginnaaw moom moo ko dàq ca biti. génne ko kër ginnaaw dal. loolu kay mën na ko génne mu dem. football ko mu dem ca àñ. waaw waaw ko defal ma loolu na dem. ndax sonal na ma. kaas yu ma teg mu toj ko. boole li ma fenal di tas sama kër. dëkk fii laa ko gis muy romb li ma li ma jaxase ki dëkk ci néeg bii nii te boo ko suñu dëkk loolu fi la ko fekk mu bëgg maa jaxase ak moom. kon moom nekk moom ba tey jugee ci. ba tey jugee ko ci dara te xam naa ni loxo da koy doxaat. te bu ko jëlee dina nekkee fii nii di concurrence man te moom mbaa ya kooku mbaa ya combat la naa li ma wax dama bëgg ko kër gi. loolu def ko hmm. loolu. wala nga indil ma ko bis ma ma ko indilee xëy na nag dina xaw a doy waar. bu loo bëgg naa la ko indi. moom it kay boo ko bëggoon faral di ah boo ko indee di am nga bëgg te it boo ma génn ko mu dem ca xaj. kon kon kii génn la kon kii génn la lépp ndax da loo bëgg naa la ko indi ci kattanu yàlla. nee na ginaar la may indi. nee na ganaar. Hmm. kii nga xam ne boo génnee maa ngi koy jaaree ko nee na ganaar waaye nag boo boo génnee boutique bi ci am foo ko mu jaar melo ganaar mu jaar ok ku fi gën du fanaan. ginaar bu góor. ah rajo ma ginaar bu góor. ak seq. melu ganaar bu góor. kooku bu ma ko indilee ba ma def ci li ma ciy def hmm. mu awal la. ganaar bu góor waaw. waaw ah, ah, yow yow loo wax mën naa leen. xam naa mos nga koo gis. xam naa ne mos nga koo gis hmm. waaye moom mos nga koo gis. Hmm. ndax boo xam na. indi mooy bëgg a wax damay am gént ko nga indi ko. boo ko lijjantee boo ko indee ma def ci li ma ciy def. danaa ko indi. du fanaan danaa ko indi. Mhm. danaa ko indi bu soobee yàlla. Ah, defal loolu. Euh, jërëjëf dégg nga. Mhm. jërëjëf. xam naa dinaa dinaa jéem a demal si ñoom ji ñëpp wut àll fa nama gannaaw. Mhm. waaye xam waaw danaa ko indi. jërëjëf. ma def ci li ma ciy def jërëjëf ñu ngi. kii daal nga génn rek. xam nga mën a xew nga génn. sa xol dina seet. incha allah. gannaaw bu buur. suñ bi moom dara bu yomb fan la naa ko góor naa ko góor fan nga ko mos a gisee mu ne mu ko demal mu ne ginnaaw ne ma ginnaaw bu góor mu fa dem ah waaye kii moom gëm na ma di ah waaye daal xam naa ni may def ak moom nan daal dinaa ko jéem a si parce que soxnaam si moom ah taaru na lool waaw tey naa leen bàyyi wut ba ba tey. waaw sama xarit laa fi toogal. te kii a mu àndal lii mu jàll ci boppam mel ni sëtu bambara rek kii kan la. a sama xarit la ci koñ la dëkk ci koñ bi. waaw ah, boo dee seet ni ngay àndal. waaw papa naaj bi daa nga demee foo jëm nii. yu xotee ko mii mel ni lu kii nii. Ah, waaw foo jëm nii quoi damay génn